Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour du 26 juin 2024 suñ fa jógee dañuy seeti projet PASTEF ginnaw ben renfort bo xamanteni gis nañ ko yaakaar ko mën na doon muy ki di Souleymane Jules Diop nekkoon fi ambassadeur itinérant bu Sénégal Macky Sall falon ko ko fofu ci France ak ki nga xamanteni moy Mamboy Diawo Boye fi directeur des impôts et domaines ba noppi ñëbbu ko caisse de dépôt de continuation. mu nekkoon candidat malheureux ci élection yi ñu génn ñom dal ñi ngi en vue pour renforcer li nga xamanteni moy parti PASTEF dal di len doon ay transhumants ci ay cadres yo xamanteni de la Casamance France la ñu jóge lool Macky Sall muy Souleymane Jules Diop ak kii di Mamadou Mamboy Diawo ñom ñep dañ leen gis en vue ñu nek ci ben terme bo xamanteni ni mën nañu am yaakaar ci ay possibilité ñu retrouver li nga xamanteni moy mooy duo bi di Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre ginnaw nak bi nga xamanteni lepp lo xamanteni dal ñing koy wax ci image yu dignitaire yi nga xamanteni ñom ñoo accueillir le président de la République Bassirou Diomaye Faye bu mu egsee fofu ci Paris dal dinay intégré intégré lepp ëpp ci li nga xamanteni moy mooy coupé jaarale ko ci avion bi ginnaw bi nga nga ni pointe la boo ni di ambassadeur délégué permanent de la République du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation la science la culture mouy UNESCO Amoul Ben yoon bo xamante ni am ben doute opposé wu qui présence am foofu nga xamante moy accueil président de la République Bassirou Diomaye Faye ci occasion bi nga xamante ni pour lui mo daal di davantage li nga xamante moy jogé ñalam ak tandem bi nga le duo Diomaye ak premier ministre sous suñu sukkandikoo daal ci li nga émission defee woon foofu ca Seneweb ginnaaw loolu daal kii di Souleymane Jules Diop dafa xamle woon ni ko daal exprime na lii di admiration am jëmale ko daal ci président wu Pastef bi nga xamante ni tey mooy premier ministre bi même ci benn port boo xamante ni vestimentaire la boo xamante ni moom mii di premier ministre bi wax na ko amul benn yoon boo xamante ni Souleymane Jules Diop.

ci débat d'idée bi nga xamante ni Souleymane Jules Diop moom ci boppam moo affirmé li nga xamante ni daal marqué na ko ko ci fierté bi nga xamante ni Pastef egsi na ko ci scène politique bi ginnaaw bu mu sagiré ay cadres yoo xamante ni dañuy génn ci Sanaar muy université Gaston Berger ginnaaw bi leen affecté foofu nga xamante ni muy ay brillant élèves doon ay cadres yoo xamante ni tey dañu créé benn syndicat jaarle ko daal ci li nga xamante ni dafa dëgër ba noppi indi benn parti politique boo xamante ni tey moo soxla benn cadre bu mel ni que ñii nga xamante ni dañ leen élevé jaar leen ko daal ci benn niveau débat ginnaaw bu mu xamlee loolu loolu ci ben émission ci sen web suñu sukkandikoo ci premier ministre bi mom bu mu commencé débat de haut niveau jaar nako ci économie finance politique don na ben débat bo xamanteni dafa sukkandiku ci ay réformes politiques ginnaw bim ko préciser daal di sukkandiku ci ay ressortissants Ziguinchor ku melni ki nga xamanteni tay moy premier ministre bi ki di Souleymane Jules Diop ñom ñoom seen bopp dañu nek ci ben mesure pour combattre lepp lo xamanteni ki di sen mam wala seen walé nekkoon na ci biir muy ay opposition yo xamanteni tay dañ leen war a bâtir jëmale ko ci ay principe ginnaaw moom su sukkandikoo ci benn jeune bu mel ni ki nga xamante ni mooy Amadou Ba ginnaaw bu mu waxee ci ay droit jaarale ko ci ay plateau éprouvé woon na daal li nga xamante ni mooy benn grande fierté enrichir li nga xamante ni mooy benn délégué permanent jaarale ko ci République du Sénégal foofu ci UNESCO ginnaaw moom midi di Souleymane Jules Diop dafa doon partagé visiblement li nga xamante ni mooy jógee naa leen ko ci tàndam bi nga xamante ni mooy président de la République Diomaye Faye ak premier ministre am ànd ceeg ki nga xamante ni mooy maire Kolda di Mamadou Mam Boy Diawo ginnaw biñ invité TFM ci télévision privée bobu mon mi di Mam des comptes fi patron caisse de dépôt et de consignation ci bopom dafa dimi dissimulé woon ay relation yo xamanteni mo moo ci digganteem ak leaderu Pastef ginnaaw bi mu koy garder toujours jaarale ko ci ay rapport yo xamanteni ni digganteem ak le premier ministre actuel dafa don lo xamanteni daf koy rendre visite à l'occasion bi nga xamanteni ki nga xamanteni moy wajurum bu jigen faatu alors que ñu bari ci ay camarades de parti am kenn ci ñom ñewul jaale ci ko lol dal le mamboy Boye dal di don tontu ki di journaliste bi am ci ay rapports yo xamanteni ni le la ko foofu direction générale des impôts et mêmes même su dee am na ay contradiction euh, politique ñoom daal dañuy rester intact jaarale ko daal ci li nga xamante ni kii di Mame diawo Diao xamle na ko suñu sukkandikoo ci journal bi di Point Actu kii di meeru Kolda bi aussi également dafa wane woon li nga xamante ni mooy intimité am jaarale ko ci li nga xamante ni dernière visite bi nga xamante le chef de l'État amal na ko ci gàmmu marabu fansu Bodian boobu amoon foofa ca Bignona ginnaaw moom ci boppam bu mu nekkee ci édition année dernière bi ci gàmmu boobu entre ki nga xamante ni mooy Mame président ak président Pastef bi nga et moi, premier ministre lu leer ba leer dal Souleymane gil Diop ak ki di Mame Diao mën nañu nek ñi nga nañ gis parmi les hommes politiques originaires de la Casamance yu y Ben marqué adhésion ci projet bi nga xamanteni ni moui Pastef moko tek politique bi nga xamanteni ni ki di le duo qui dit président de la République Diomaye ak ki nga xamanteni ni son premier ministre muy Souleymane gil Diop ak mambo et Diao en tout cas bokk nañu dal ci bés yi ñu jëm ñu gis leen dal ñu renforcer parti bi nga xamanteni moy parti Pastef indi sen expertise jox leen ko ki nga le président de ak premier ministre originaire de la Casamance donc on appelé <laughs>